3S4. si un grand champion di xale bu nga xamante ne bii phénomène la bi ñu ñëwee ci làmb yàggut mais ñu ngi ci bay waaram di ci marqué empreinte am ba su jógee maa soxla li koy topp kenn mënut a xam fa lañ jóge wala fa lañ bàyyi ko muy Siteu bu Ngor ku ne nag mi ngi dëgmal combat bu nga xam ne bii combat bu bëri coow lan mooy problème bi diggante ak adversaire am muy euh, Diop waaye tey amoon nañ face to face foofee ca adresse mu war a nekk seen premier face to face ñaar mu war a jàkkaar mu war a jàkkaarloo saafoon teg supporter yi ku ci nekk jokkalante seen morom ay kàddu waaye gis nga par la suite li nga xamante ni noonu la mujjee mais encore di félicité bu baax a baax promoteur bi muy Fallou Ndiaye Ndiaye production parce que jël na ay millions yu bëree bëri investi ko tey fi nga xam ne mooy ci face face mais gis nga li yàlla bëgg ak li jàmm noonu la demee waaye ñu ngi toog ki nga xam te ne mooy Siteu bu Ngor dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñi ñuy siiwal su ko defee ñu mën a dugg ci waxtaan bu baax a baax di la siyaar. Eh, ñu may fay kër. Mm-hmm. maa ngi yàlla moom Cheikh Rafa ci loolu la sëñ Matar ñu eh, rawatina Ngor Yoff nuyu ñëpp di jégal waat ñëpp mm-hmm. ma la fekkee ci kër gi def mel sa xool nekkul la dara non dara mm-hmm. non non mm-hmm. ah, ah diggante ak Diop 2 muy combat bu nga xamante ne bi àdduna ñu ngi koy xaar di ko waxtaane combat bi taxaw dafa taxaw rek coow yu bëri lan mooy sa problème ak Diop 2 waaw ah, ñaari xale la yu gox di topp rek loolu moo waral cool yi mm-hmm. waaw mënul benn làmb si làmb la tamit mm-hmm. waaw mënul dépassé mm-hmm. na ñu ko am na combat yu fi jàll mais coow bi am ci combat bi amul ci yeneen combat yi moo waral loolu waaw làmb la dafa si yoon rek ma si yoon yàlla daf ñu courage rek am lu koy topp am lu may topp waaw kon mënul dépassé yeneen làmb loolu moo waral cool yi am yëpp eh. tey nekkoon seen première face to face ngeen war a jàkkaarloo ba jokkalante ay kàddu bëggal amateur yi ak supporters yi ñu gis mu xewee foofee ca adressé woon mu ñëw indi mbooloo bu bëri yow tam nga indi mbooloo bu bëri mais la. waaw loolu hmm. laa ko lamb rek la. non war sëñ Fallou jàppee moo ko coow su lamb la woon rek. Hmm. lamb ak loolu mënoon ñàkk. Hmm. bu ma ko bu la. loolu ak lamb mënoon ñàkk. ñoo ànd loolu coow. non mais dañuy gis ci communication avant ngeen di ñëw ci face à face bi nga toog sa kër def communication moom tamit la même chose dafa mel loolu ku ci nekk dafa am lu waxul sa morom ba bi nga ñëw ci face à face bi da ko wane. non man wane ma dara sax. Hmm. ku toogagul kañ waneegul moom. ah mais ni nga dugg si dafa tàng si te. non tàng ma ku toogagul kañ mënoo mënoo wane dara loolu kese la. Hmm. làmb la woon rek. waaw moom mu am teetal duñ ko duñ ko luñ koy jox moom tamit ñu am lu ñuy jox rek loolu kese la woon. Hmm. waaw lan moo créé coow bi. coow la loolu man jaam loolu gisuma fa coow de. non coow am na nag si parce que tey coow moo tax tey xam nga tey Fallou Ndiaye mënul euh, woo vingt mbër toog fa mbër bi premier combat sax waxaguñu yow bi ñëw toogoo sax ci biir sa sa biir banque sa biir coow am lan mooy problème bi lan la. waaw moo tax ma ne jàppee ma ko coow loolu du coow bu dee ñoom coow lañ ko ñu ko coow. Hmm. rek. waaw jotaay bi lan moo la woon rek. lan moo ko indi. ay jotaay yu sew la woon rek. lan la avant avant face à face wala ci biir face am moom. Hmm. non waaw jotaay bi lan moo ko indi. jotaay la rek. waaw ki may àndal moom moom moo wis ki may àndal sunguf. waaw man tamit ma af sunguf rek. Eh, siggi yam mu bu mu ma ma daw poñe ko rek loolu kase la. Hmm. waaw mais ndax tey loolu ñu ngi koy xaar si yéen ñaar. muy combat bu nga xam ne àdduna koy waxtaanee ngeen bokk ci yaakaar ci yaakaaru làmb tey bëri na ñu leen jiitu ci biir làmb macha li ngeen am ci biir làmb ñoom amuñu ko tey ñu am ko ngeen di xaar est tey sa diggante Diop Dóor mu jeexee ci ay face à face jeex ci ay jàppante poñonte est-ce que tey loolu la ñuy xaar ci yéen. non loolu ngeen du dara moom. Hmm. jeexewul si ay poñante moom. Hmm. non non. ci la la jeexee. ñàkk organ lii rek la jeexee sécurité waaw ah, da nga jàpp ñàkk sécurité waaw man commanda ci loolu la ma wax sa sécurité géré tuma ko hmm. instant yi amuñu amuñu sécurité mën ñu gérer seen sécurité dem leen ñibbi loolu ko salaa si am hmm. waaw kon du coow moo ko tas de mais poñante bi am sa diggante ak moom ba nit ñi naan am na fa ay rocceek nangam ak sàngam loolu looñu ci mën ci ay leer non loolu dara làmb affaire da làmb rek la hmm. loolu kon da ko doon làmb nii quoi non loolu lépp ak làmb ñu ànd loolu du dara. Mm. waaw non loolu dara. si de daa mel de. non laaxatu ba image yëpp a ngi fi kañ gis nga ko keneen ak keneen gis na ko. Mm. loolu du dara. ñoom nag ngeen a yaa tooñ ndax moom nee na bi mu ñëwee dañ ne ko amoo droit dugal benn béjjën euh, ci li nga xam mooy ci biir euh, face à mais nee na yow dañu la bàyyi ma dugal béjjën loolu la nga koy wax nga koy dëgg wala. non man nañ ma bàyyi ma dugal béjjën mm. loolu waxu boppam la rek. kenn bàyyi ma rek maa am sama fulla rek yaa am sa ko boobu waaw loolu kenn noonu mais sa coow ak jot de lan la dafa mel ne ku ci nekk fa am loo teel sa morom lan la non du coore làmb nee làmb rek la am na làmb yu appoon coow yu fi romb xëy na bii dafay dasay gën a mu nekk ñaari xale rek mais di coow loolu ay détails woon rek sunguf sunguf xam nga waaw lu ma waxoon rek ñu tooñ kenn mais ku ñu tooñ rek jox suñuy jóg mais nee na yow yaa ko yaa ko gis sunguf sunguf non non moom moo wis ki may àndal sunguf ki may àndal mu ngi def ay ceetala moom mu sotti ko sunguf sotti ko sunguf waaw waaw man man tamit ma yor sama sunguf ma ko koy ëf ma siggi yam si moom mu bu ma mu la waaw loolu ngeen bomaxante daw jàppante daw jàppante nga tëgg ko mbot waaw mu roccee ko waaw mu roccee ko pëtëxal la waaw waaw loolu à part lan moo xew foofu dara waat ah. uh-huh. <laughs> dara xewul foofu non dara xewul ah. non non mais est yaa ngi nu séntu comme lu mel ni mu jeexee fii tey nga déplacé wu jóge Ngor ñëw ba euh, Grand Yoff mu jógee benn baraag yëmbal ñëw ba adresse Senghor mu jeexee nii yaa ngi ko doon séntu wala. mënoon na gën a ñaaw. déedéet waay ñi ma àndaloon. Hmm. ay kaar lañ dañ leen téye si buntu bi ñu ne ku dëkk Ngor du dugg. ku wax loolu. bar sëñ Fallou. gendarme yi ne ku dëkk Ngor du dugg. ñi nga àndal dañoo nekk ci ay kaar ñëw ci buntu ñu leen. ku dëkk Ngor du dugg ku ñoom ñëpp yor seen i man ma génnee sama xaalis mi jënd si ay billet. mais xanaa ñoom ñuy ñëw yor ñu yor ñëpp yor ay billet dañ tëj buntu yi ne ku dëkk Ngor doo dugg ah parce que amaana liñ baree la wala xaw ma la la quoi. ah mais xam nga yow da nga am sa tribune moom am tribune am ku ci nekk. waaw ah, man de loolu ma si jaaxal lenn si tam moom moom fii Diop moom moom fii. waaw ah, léegi lan mooy man fi ma war a toog ma war a féetee ay ginnaaw ay supporter am ginnaaw. waaw waaw loolu nag première erreur mu ngi noonu. première mooy fi nga toog waroo woon ginnaaw. supporter am ah, xam nga dañ si làmb meet dañuy rafetal quoi. ok première erreur moo nekk noonu. Hmm. ñoom supporter am xeer yi ñu doon sànni. bu doon samay supporter ñun ñun si biir stade bi si biir stade la ñuy tëb ok mais <laughs> dugguñu mhm. comprendre nga mhm. yàlla dogal na dugguñu waaw lu bare loolu tamit ba léegi yenn booy ñu si yoon bi di dox di ñëw bi ñëw waaw comprendre nga xëy na mhm. tamit yéex nañ du ñëw parce que joxuñu ñu heure dem nañu signature bi teel rek mooy loolu affiche bi da nga doon gis vingt di gis di sept heures dix sept waaw loolu nga doon gis xam ñun tooñu ñu benn yoon ok suñu lépp topp nañ ko ah kon waaw na nay rafet quoi nay ñun bu ñu jëlee suñu xaalis daga ko ay billets suñuy morom tamit suñuy supporter tamit jël seen xaalis daga ko ay billets pour dugg waaw wala waaye ne leen ubbil bunte ñu dugg parce que bu ñu xasee nag kii moom moom buntu bi kii kii moom A kii moom B waaw waaw nañ ko rafetal kii na tooyee si ginnaaw supporteram kii tooyee si a supporteram ñu may kii tamit ay supporteram dugg mm. eh, loolu moo waral tamit ñoom biñu génnee tamit coo loolu am fa waaw cool yi am si biti ñoom bi ñu génnee waaw loolu moo waral parce que samay nit dugguñu woon woon waaw léegi yow loolu après noo ko mën a jàngate say euh, say nit ñëw ñu teel di leen duñ dugg loolu noo ko mën a mu a jàngatee bu dee hmm. bu dee si police bi la nañ rafetal rek hmm. xam ne a bu doon koñom la bu biir këram sax hmm. dañuy noonu lay demee waat bar Seydina naa Diop maa ngi koy dégg sànq ci communication mu ne da nga woote euh, combat da nga woote millier te boo woote millier du baax si loolu ay waxam la rek hmm. moom loolu ay waxam la hmm. barki Seydina Mouhamed moom amul fit amul fit Alaaji Fàllu xam na ne amul fit mi ngi lay xool moo waral moom ay nit ñëw may ko doole si kaw podium bi moom ah hmm. dafa taw an yar ay nit ñëw may ko doole moom kon ni ko may doole kon moom yor na mbool de lu tax bàyyiwul mu ñëw Hmm. mais moom ngolda bi la ànd ak wàcc si suuf di simb rek hmm. aa ah, bi si kaw la woon hmm. si suuf la daw wàcc di simb di daw di simb mu ngi lay seetaan loo koy wax waaw moom amoon ay face te boo jógee am na loolu topp bu doon suba dañuy demaat face à face bu doon suba dañuy demaat face à face bu dee ni lay ni mu demee lay demee waat sax na koy demee waat encore bu doon suba dañuy demaat par Seydina Muhammad bu doon biir fa ñoom la tamit dañuy dem. Mhm. bilaay walaay mais bu ñu déggee si communication da nga da nga ñeme trop da koo ñàkk a nawloo trop lan la. man da xool jàpp ne yaa ko mën wala qu'est-ce qu'il y a. non maa ko man sax man bu ma nar bu ma bu dee dama kaa nar a ragal wala may jàpp ne lenn la dara si moom. Mhm. kon man man woo samay mbokk yëpp na bàyyi naa làmb parce que fi ma jëm moo gën a métti moom. Mhm. bar Seydina Mohamed. wax ji rek. waaw waaw moom li koy topp yëpp par Seydina li ngay topp yëpp da koo dab. Hmm. première làmbaam fi la ñu fekk lépp fi la ñu fekk. ok comprendre nga. Mhm. Eh, kon bu mu bu mu bu mu lu xamante ne nekkul si moom. nekkul si moom noonu non. Hmm. non non waaw li la dab nag bokkul ak li ñi nga judduwaale ñu bëgg la ànd ak yow fu ne. kon yow. waaw ah, ñooñu la jaral nga leen da nga judduwaale moom loolu yow. waaw ok. Ah. fan nga toll kon ci wàccaay bi le 19 mai. kon ni loon waajee rek mhm. waaw kon ni loon waajee rek mhm. foofu lañ si tolluwaat mhm. dañuy gis saa bu ñu xëyee combat bi enjeu bi day gën a yokku di gën a jëm kanam niveau bi di gën a yéeg surtout combat man loolu moom si dara damay kilifa lu ñu wax rek waaw man si loolu laay dox si loolu si loolu laay d'accord waaw noo déggee ñeneen ñu ne Siteu moo tooñ tey Siteu moo tooñ ñu ngi koy wax naa leen baal naa leen waaw image yi ñu ngi fi imaginateur ah, moom dafa yor sunguf mu li ma waxoon dafa yor sunguf waaw booy bi tamit di ba beneen côté moom moom mu ñëw wis ko sunguf mm-hmm. comprendre nga man am naa man bu ñu ma joxoon biteel na ma sotti ko ko sax danga ko koy këpp danga ko koy këpp waaw kon ñi wax ñoo tooñ rek ah. xëy na dañoo nekkul ay nigu làmb rek làmb ak loolu ñoo ànd ñoo ànd waaw koy wax ak loo koy dara lu dul na waay rek mm. fépp fu ñu woo rek waaw na teew man ma teew rek loolu kase la mm. loolu kase waaw tey promoteur wax naa ko sànq génne na xaalis bu bari tey investir ko ci li nga xam face à face bi ñu gis ni mu yàqoo nekkul kenn ku nga xam ne nag bëggoon na mu yàqu ni moom la koy wax en personne Fallou Ndiaye waaw ñun tamit bëgguñu woon mu yàqu mhm. moo waral ñu dem ba foofu génne suñu xaalis li xamante ne suñuy entraînement la waroon dem ñu génne ko génne ko suñuy supporter ay ticket mhm. waaw kon kooku bëggul woon mu yàqu mhm. loolu kese la ah. waaw ba tey day wéy di nekk combat milieu wala tey la fa gën a doon ah. tey bis bi ko laaj combat bi ko laaj. tey la gën a doon waaw. Hmm. bari Seydina Mohamed. waaw tey la loolu gën na ñëw. mais tey boo wootee millier moom moo woote millier ba tey combat bi après dina kii. waaw moom nee nañ lan dëkk la. waaw am na lépp waaw bu dee dëkk fii lan la. waaw ñoom kenn a juum rek dañu wax yëmbal ruux la rek. waaw ruxu <laughs> dégg mu la gën a la yëmbal balaa nga koy jot di nga di nga jot ay décret waaw balaa boo awee tali géej bi waaw balaa ngay jot yëmbal waaw ñaata dëkk ngay romb asek asek naa yëpp si la Malika Gadaay waaw asek naa kon yëmbal la ruxu la waaw ngor nag ngor waaw doo jot doo romb fekk ba bi ngay dugg ñaar benn ñaar porte nga daj croisement bi kese nga daj benn porte waaw yow ngor dëkk la ngor jàpp almadi jàpp hmm. waxam virage yoof karaawoo bi yëpp hmm. waaw kon ngor kenn dina dëkk loolu dëkk ñoom kenn dañoo juum rek dañoo juum ah.